loolu ma indi woon ci plateau bi parce que dafa am lu ñu war a leeral xam nga Mimi Touré dafa bi ñu ko dàqee APR dafa génn di ñu di di di ñu di ñu di ñu ŋëwti ŋëwtee ñun waa PDS mhm. naan waa ñooy ñooy ñooy rapprochement ñooy dil ay dialogue ak mhm. yooyu waaye mais ñun loolu le maire de Dakar Barthélémy Dias daf ñu ci seetal parce que moom moo génn ne moom moo initié dialogue bi wax na ko wala waxu ko waaw kon ñun ñun Barthélémy Diaz ñun seetal nañu mm-hmm. te man je pense aussi que la position de Barthélémy Diaz est responsable parce que réew mi fi mu toll et courageuse ouais. et mm-hmm. parce que aussi pour au dialogue effectivement il faut être courageux ouais. parce que réew mi fi mu toll bu ñu toogul ñun ñëpp waxtaane ko ah je pense que mën nañu indi ci situation yoo xam ni bu boobaa kenn dootul talati mm, kenn ça c'est vrai donc kon ñun Barthélemy Dias seetal nañu kon ñun waa PDS mësuñoo nekk ci ay compromission mësuñoo nekk ci ay deal Mimi Touré moom mooy mooy dealer mooy mooy dealer bu mag bi. parce que moom a dealé elle est dans l'opposition tranquillement elle fait son chemin xam nga aussi il faut que dans ce il faut qu'on nous soyons sérieux xam nga Mimi bu doon ay combat de principe lay mëne ñun waa PDS kon dañ koy jàppale mais Mimi Touré lan ko tax a génn APR dañ ko ne joxuñu la présidence assemblée ay poste ay strapontin elle dit que c'est pas ça mais lan la c'est la question de la candidature benn mais aussi euh, les discussions yi doon am ci ci coulisses yi ñoom ñoo tax monsieur Ndiaye xam loolu la moo tax ma il faut que dans ce pays là que nous soyons sérieux mm-hmm. Mimi Touré poste tax ah mu génn di kaas mais man tiim naa mu Mimi Touré euh, assemblée muy jooy ban jour jour vote jour installation bi parce que li may wax je parle sous le contrôle des députés qui étaient dama ni la elle pleurait elle pleurait mooy bi ñu choisir Amadou Mame Diop dama ni la man maay génn ci couloir bi ci couloir bi gis nga fi Benno Bokk Yaakaar fi ñuy toogee ñoom. Mhm. beneen porte boobu man maay génn gis Mimi Touré ak Farba Ngom Mimi di jooy naan ko jox ba sama procuration. te man ku ma xam xam ne du ma wax lu ma du ma fen du ma wax lu amul xëy na choc bi moo moo diisoon. kon moo tax ma ni la kon moom ay moom poste moo ko tax a jóg kon bu amoon la mu bëggoon tey day ànd ak Macky Sall ci troisième mandat. Mhm.